gone gu ndaw man laa wax sëñ bi wala ko baax yaara sang bi delloo la ci mbootu naan la bébé jii manque respect la ko jël ci adduna bébé magum jëm man imaam yi jàkk wóoyewul la dara lu may bébé sëñ bi ne fi yaaram ne fi ku tedd ki ne fi sang bi ne fi ah ñu ne ko fi teg luñ ci jublu mooy minimiser la ak foyee la.